dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak waykat bii di Pape Diouf journaliste yi Rewmi Quotidien laaj Pape Diouf na ko coronavirus bi nan ngeen def ak moom a yéen waykat yi Pape Diouf na ko coronavirus bi ay jafe-jafe neen la ñu andil ndax jamono ji liggéeyatuñu ndax toog nañu ay weeri weer yoo xam ne maanaam defuñu lenn te loole maanaam indil nañu ay jafe-jafe Pape Diouf daat nay wax ci morceau bi nga xam ne maanaam génne na ko tuddee ko fësalay di nag nee na daf ciy delloo njukkal ki nga xam ne mooy soxna Bamba ak mbooleem ñi nga xamante ni rek am nañu ay soxna ndax sëy bu neex dafa am solo lool ci góor moom Pape Diouf wax na ay jaar jaara ma ci yéen kay gi di réew mi ko di cee nee na maanaam si zéro la commencé commencé wul ci dara doon xuslu ba àgg fii mu yegg maanaam nelaw na ci mbedd mi taw bi fekk na ko ci mbedd mi moom Pape Diouf wax na ne mbooleem loo xamante ni artis rek dañ na ko dañ naa ko ngir egg fii ma yegg moom xaritu bébé baas Pape Diouf daan nay wax loo xam ne nee na marqué na ko lool ci li nga xam ne mooy carrière nee na am na biir si boo xam ne ba mu demee biir Kër maanaam di spectacle boobee mbir mi diisoo na lool ci moom soxla won na ku ko dooleel soxla woon na ku ko may fiit waaye nag ba mu xoolee ci la gis président Mbagnick Diop maanaam jël avion Sénégal fekk ko Paris la France maanaam ngir dooleel ko boobee nag am na lu ko bett lool ndax boobee soxla woon na ku ko may fiit ak ku ko dooleel yéen a kaay gii di li quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu Dakar bu tawee rek askan wi nekk ci ay jafe-jafe rawatina lu ci wàllu dem ak dikk bi yéen a kaay gii di libération mu di ñu xamal lan ñu niki démb bëri woon na ay école yoo xam ne dañoo duyoon ndax ba fees yoon yu bari munu si woon jaar ak tunnel yi yéen a kaay las mu xëy di ñu xamal laan ñu Abdoulaye Diouf Sarr ak Abdou Karim Fofana jamono ji commencé na ñoo defante ndax ñi nga xam ne ay farandooy Abdoulaye Diouf Sarr lañu ci réseaux sociaux yi dañoo wax ne Abdou Karim Fofana dafa jënd benn kër boo xam ne maanaam kër gi 600 millions la ko jëndee waaye nag loolee ay jegeñaale Abdou Karim Fofana daat nañu koy weddi ba tëdd sa naaj wa nee nañu loolee du dëgg waaye nag liggéey bi nga xam ne moom la Abdou Karim Fofana di def maanaam loolee ak Amadou Amadou Ba ndax Abdou Karim Fofana liggéey bu rëy def ci Sandaga rawate naag projet cent mille logements yi nga xam ne ñëpp gis nañ taxawaay bi mu ci def yéen a kaay gii de Les Échos mu xëy di ñu xamal lan ñu Thierno Alassane Sall ak livre bi nga xam ne génn na ko yàq si musiba ak nga Macky Sall ak ni nga xam ne moom lañ yoree réew mi ak tojaange yi nga xam ne moom lañ ci def Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moo jiite cadre APR yi ak Abdoul Mbow daan nañu koy tontu nee nañu Thierno a ñu réunion bi nga xam ne waa CEDEAO doon nañu ko def maanaam njiitu réew yi nga xam ne ñoo si bokk ngir lijjanti coow li nga xam ne moo am ca diwaanu Mali réunion boobee nag Umaro Sissoco Embalo maanaam président bu Guinée Bissau moo toj réunion ba ndax ba ñuy réunion ba mu yàgg dafa jël kàddu ne nag en am na loo xamante ni coup d'état la maanaam ñetteelu mandat yi troisième mandat yi coup d'état la Muhammadu Buhari njiitu réew Nigéria dafa reetaan Alpha Condé am lu ko naqari lool Alassane Dramane Ouattara moom tim am lu ko naqari daal di jël kàddu na ko fiston Umaro Sissoco de kay dagg na ko fi son amu fi amul benn réew bu ndaw réew yëpp réew yu mag maanaam seen naataangoo la yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu xamal ñu nañu coup d'état bi nga xam ne moo xew ci Mali militaire yi nag anam bi ñu ko doxalee anam bu civilisé la ngir nag respecté li nga xam ne mooy forme de légalité yi yéen a kaay gii di li quotidien mu ñu xamal ñu mouvement 5 juin ñoom dañu doon feetu ndam li nga xam ne ñoom jàpp nañ ne am nañ ko ci coup d'état bi nga xamante ni xew na ca Mali laas yéen a kaay mu ñu xamal na ñu njiitu réew mi di président Macky Sall ginnaaw juróom benn weer yoo xam ne génnul réew mi Macky Sall ci week bi dina génn réew mi maanaam dina jël fofal naaw roppalaan gi génn réew mi ngir nag lijjanti jafe-jafe yi nga xam ne maanaam Sénégal ma ngi koy jànkonteel yéen kaay gi de libération ci ñaari Samba Boye ñaar ñoo xam ne njort nañ ne ñoo def gila la ñaawteef te ñaawteef gi rëy na maanaam xale bu jigéen boo xamante ni fukki at ak ñett rek la am maanaam la ñu jàpp sa yoof ñoom xale yu góor yi maanaam téeku lu toll ci fukki fana ku yéeg ba pare wàcc jox sa moromu yéeg maanaam dañu ko jaxte jaxte yàq nañ xale bi yaxeet teg nañu leen loxo brigade des mœurs moo fa jaar yéen a kaay gi de Stades wax ci ligue des champions bi dimanche la niki suba ci final bi dox diggante Bayern ak Paris Saint-Germain maanaam nag dafay nekk bu njëkk Paris jël ligue des champions bi wala juróom benneelu yoon Bayern daal di koy jël en tout cas niveau attaque bi si ñaari équipe yëpp rëy na lool maanaam cinquante cinquante la ndax bu dee Bayern Lewandowski ak Gnabry ak Müller bu dee Paris Saint-Germain Di Maria ak Mbappé ak Neymar journal bi de Stades nee na en tout cas suba ci dimanche ji la lépp de leer diggante Paris ak Bayern.